lañ wax fii Sénégal yow El Hadj Diouf billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa barkeb alxuraan lii ma la wax bëccëg mu ngi fi ñëw xale nag bu ñu ko nee bis ngi ci bisi day defe ne tabaski la audio bi Adji Sarr def te wax ca wax ju ñaaw ci maître El Hadj mm-hmm. wax ci wax ju ñaaw ci lu mat fukki nit ak juróom wala lu ko jege mm-hmm. dégluwaat naa ko tey ji dong fukki nit ak juróom baa lu ko jege ëpp na fukk kenn ku nekk wax na ne moom dafay jaar ak moom ci barab waaw day jaar ak moom ci barab aji a ko wax wax na ba tudd ci El Hadj Diouf wax ju ñaaw audio boobu nag maa ngi lay jox rendez-vous da ko jot maa ngi koy jox rendez-vous sénégalais yëpp di ngeen ko dégg aji saar ci jëmmi boppam mu waxal boppam ne Ousmane Sonko séqu ma ak moom dara lii ma def Mamour Diallo ma ko sant te aji saar ki doon wax loolu mooy ki gën a màgg ci moom mooy sëriñ bi nga xam ne ci moom la dem ne ko aslamtu nafsi yi muy tiijaan la ci ki mu jëlee wérd kooku la dem wax ko dëgg gi yàlla weer ko loolu yii nag maa ngi jox rendez-vous Sénégalais yépp comme dossier bi moom mi ngi dox loolu moom xaar leen ko di ngeen ko dëggandoo di ko gisandoo El Hadj Diouf nag yow yaay ngemb ne Adji waxkatu dëgg la lu mu wax dëgg la fenut wallaahi la asim li la waxal bu ñëwee ngir jëmi sëriñ Touba bul taxaw fenn ñoo bokk sëñ Touba maag yow bul taxaw fenn naan non li mu wax fii moom du dëgg moom.